aas yi bariwut euh, mu ngi noonu ñoom lañ dendale noonu ñu nekk ci xabru bi fas yéene dëttal ki nga xamante ni mooy Serigne Mansour di borom daraja radiyallahu taala anhu nekk ki nga xamante ni kenn moom moo doon ganale gan yi waaye ki nga xamante ni xam-xam bi ki nga a gàmmu rek dañuy kontaan kooku Serigne Mouhamadou Mansour si radiyallahu taala anhu waaye te ki nga xamante ni a dugg ci burdu bi rek xool yëpp tooy xool yëpp fees ki nga xamante xorom la woon ci Tiwaawan ginnaaw demee wéetal nañu lool macha allah wéetal si Malick di ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem waaye tamit di ñaanal soxna Fass ibnu Sëriñ Mansour ibnu Alaaji Mansour yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem waaye tamit di ñaanal tamit ki nga xamante ni mooy soxna As tamit yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem Sëriñ Mansour mooy ki nga xamante ni moom moo organiser liñ naa action daara ji waaye tamit organiser li nga xamante ni moo nekk euh, di ziar euh, daara ji lépp mu organiser ko lépp moo xamante ni moo ko fondé ci euh, kan gër si ndigalu papaam Seydi Aboubacar si radiyallahu taala anhu waaye tamit mu daa ànd rakkam Sëriñ Abdou Aziz Al Amin Sëriñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum ñu daa ànd ñoom moo tax seen demi sorewuñ tamit da leen ñaara yàlla na yàlla yokk seen lee tas de oustaz day ñëwaat léegi demaat ci xabru jox leen tamit information tamit foofu ci yeneen xabru yo ni ko nit ñi duggee di ziar nan la euh, wane seen cofeel ci tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif euh, Cheikh pass oustaz micro bi rek incha allahu rabi mu demaat mu demaat ci beneen xabru suñ paree ñëw ci yeneen yeneen incha allah waaxiru daawana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi alladi qala fi muhkami tanzilihi ajibu daaya li ida daakum lima yuhyikum wasalaatu wasalaamu ala man xaal man ahabani kaana maay fil janna mbokk yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen tabarakallahu comme ni ko El Vision di faral di defee rek bu ngeen ñu xoolee xam ne ñu ngi fii ci xabru Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu ki nga xam ne moom laa ànd ak muy yaa sayda moo ñu nekkal fële ci xabru Serigne Mansour Sy radiallahu taala anhu tabaarakallaahu fii nag Cheikh Al Khalifa kenn du leen ko jàngal moom ci gàttal rek tabaarakallaahu la ko doom ju tedd ji waxoon Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum xool ko ba mu neex ko mu ne ko abuna abu bakrin wa in kaana fi lxabri radina bihi cheykhan ila axiri dahri ñu yaakaar fala ya mu ne ko li man antami in lam yakun li janabihi bi man aqtadi in lam yakun bi abi bakrin ñu yaakaar fala ya mu ne ko xalaalaka jawul xalbi yaa tayra ubbihi fa biidi bi xayrin wasiri asada tayri kooku mooy kan mooy ki nga xam ne moo jàkkaarloo sëriñam bu tedd ba euh, sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Chérif Al Maktoum xool ko ba mu neex ko mu ne ko qutbul wujudi alladi abda wilayatuhu rabbi wa aadamu bayna almaai wa tiini ñu yaakaar fa yam mu ne ko wa cheikhu ahmadu tidiani mayam nga wér na ca réew ya kooku mooy sëriñ Babacar si mi nga xam ne tabaarakallaahu boo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk jàkk mi nga xam ne cofeel rek moo leen fi andi te ku ne xam ne ne cofeel مو نتون كي موي بوسيري بامي واخ نان ما حاطني النصحه لكن لست اسمع ان المحب عن العذال في ظلم مو دون لو خا نني نك اموي ساغو تي موم سيرين بابكر نيكون كو خا نكو مودست لا نيكون كو خا نكو ام مقام نكو ام ولايه تبارك الله نيكون كو خا نكو دغلو غا خا دان دم باي واخ نان ان ربي يعطيني ما اطلب خط لانني ما عصيت ربي قط خنا فوفو لا تياخان نياك فوفو ليغا خا موي مرتبه يام neena yàlla lu moko ñaan mu may mak ndax musuma moy ki nga xam moy borom ni la la ko El Vision fas yéenaa defalee rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam wax naa leen ko sank ya sayda mo ñu nekkal fële ci xabru Serigne Mansour sibo ba ñun itam ñu nekkal len fi nga xamne moy mooy Serigne babakar Sy radiallahu taala anhu وحاخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنا بنسنت بروم سبحانه وتعالى دجل سانغ سانغ مسيرنا محمد عليه الصلاة والسلام ساس نين كده في نينا درش جام تواون جنا بو جوجي تي راود مام سيرين بابا كسر رضي الله تعالى عنه نيونا تي كيغا خامتاني موي خاريتام با با كيغا خامتاني بامي ام فيك اتاك جوروم نياتي لاكو جوخون بورت بارول بي مو نيك Sy Al Amine nga xamante ne moo ñu fi moo fi si jamono ji passé mu nekkoon sunu porte parole durant ba sëñ Babacar fi nekkee euh, nekkat porte parole ba si Maabdou nekkee mu nekkat porte parole ba fi sëñ Mansour borom daa ji nekkat porte parole ba fi Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nekkee ba nim nekkee ci xilaafa gi yàggu fi ay weer fi def mu dem bàyyi maam dafa liggéey ba xëy dem maam dafa nekk koo xamante ni benn yoon donte ko mag la ñun taalibe yi ñoo ko doon yërëm waaye coupétee la nga leeral sa kër mu ne jamais ndax waa Tiwaawan duñ lëndëm bay nekk ci leer mu jël groupe bi yëpp ko fële ca daara ki nga ni mooy ki nga mooy alamine bi nga xamante ni moo boole njaboote woon waa Koskas waaye tam njaboote ki nga xamante ni ñooy waa Chod daaj waaye njaboote nga xamante ni radiyallahu taala an waaye tam ki nga xamante ni bokkoon na ki nga xamante ni bu réew mi mësaan a am problème alamine bu mu waxee rek dañ koy may lépp mooy euh, ki nga ni moo toogal moo fi moo topp ci sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum toog fi lu yàgg xajal ki nga xamante ni mooy Serigne Mbaye Sy Mansour wàcc fi ay kàddu yoo xamante ni kàddu yu am solo la ba mu génne ba mu génnee àdduna wàcc nañu ñu ànd nekk benn ñun tarixa Cheikh Tidiane Chérif waaye waa kër Seydi Hadji Malick indiwaat Pape Malick ne ko toogal sa wetu mag kookoy sunu maam Abdou Aziz Al Amin di ko ñaanal yàlla na yokk yokk leeram taas ci barkeem waaye ki nga xamante ni papam ba mu nekkee xale la ko papam yëkkati woon ca kaw ndax lam amoon ci eh, leer lam amoon ci xam-xam waaye ki nga xamante ni ki baax la woon koo xamante ni ku yaatu la xamante ni boole woon na njaboot ñëpp sunu maam Abdou Aziz Al koy ñaanal yàlla na yokk leeram taas ci barkeem ba léegi pareeguñ de na ñëwaat demaat ci beneen xabru ma passe oustaz rek mu ñëw demal ma fële ci xabru suñu maam Abdou Aziz Dabakh Malick borom 40 ans zéro faute suñu rabbi ñu demaat ci xabru duñu bàyyi dara ci gàmmu Tiwaawan incha rabbi waaxiru daawana wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin alladi qaala fi xadis alqudsi man aada li waliyan faqad aadantuhu ba El Vision Média comme niñ ko leen ko waxee woon fas yéene dëkk ma li nga xam ne moom la ñuy taataan ci gàmm gi tabaarakallaahu naka noonu yaa sayda ma nga ñu nekk loon fi nga xam ne mooy rawdu Serigne Abdoul Aziz Al Amin ginnaaw bu ñu fa jógee ñun ñi ñëw teewal leen fi nga xam ne mooy rawdu Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh Cheikh Alhaaji Abdoul Dabakh mi nga xam ne 40 ans zéro foot tabaarakallaahu ca mbaax ga ca yiw ga ca sell ga Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh mi nga xam ne dafa yoroon pusam doon ñaw li nga xam ne mooy diggante yu xotteeku yi ki nga xamante ne bu réew mi yënguwaan kasatam la ñuy teg pour réew mi mën a dal ki nga xamante ne keroog ba nga xamante ne roi Hassan II ñëw na fële si institut islam yi ñuy jaaxle kan moo war a jiite xel yëpp dem ci ki nga xam ne mooy Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh Cheikh Al Hadj mi nga xam ne sëriñam bu tedd ba sëriñ Hadi Touré daf ko jàngal ba pare waaye xam ne kii bokk la gaañ yi ci la tourné wax ne na ngeen déglu tey jii ma wax ay meloom bu kenn weddi ndax maa ko yar maa ko xam tabaarakallaahu mu di koo xamante ne kenn la woon ci njaboot Cheikh Al Hadj bu fekkoonte ne mbaax dina weesu mbaax kon dañuy wax ne saa waa ji jàll na fa waaye itam mu nekkoon góor goo xam ne tabaarakallaahu cafeelam ci yonente bi kenn xamul woon ni mu day demoon na bay wax naan man aw ma benn médecin bu dul ki nga xamante ne mooy Seydina Muhammad su ma feebaree du ma dem fi nga xamante ne mooy hôpital su ma feebaree duma dem ci sëriñ su ma feebaree du ma bind saafara كن موما ما نفاج موي سيدنا محمد سوما بنده وقتي موم تاغ موم ما يغنا تبارك الله سما فيبر ورنا مالي طبيب غير طاحه نون لا دان واخي دان دان وانا سوغن ما بغي فاج ريك واي نغن تاغ كيغا خمانتني موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو نيكي تام جابوت شيخ الحاج مالك واي دون نيت يالا كامل دون كو خامني بروم ولايه لا دون كو خامني بروم مقام لا doon koo xam ne fu nit yàlla di yegg ci martaba ak ci wilaya Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh mi nga xam ne tey moo tëdd fii yegg na fa. mu doon koo xamante ne maanaam ci gàttal dafa nekk koo xamante ne dafa làqu rek waaye demul fenn ndax loolu alquran moo ko wax yàlla nee na ñi nga xam ne dañu maa liggéeyal ba jóge fii rik waaye bu leen jàpp ne ñoom day dañoo dee. xam leen ne dañoo làqu rek te itam loolu comme alquran la nas bu wér la kenn du ko laam-laamee تبارك الله كون نك نين لن كو واخي وون ان شاء الله نون لا لن كو فاسينا توبلي سي خبر ييب ان شاء الله نين لن كو واخي يا سيدا مو نيكون فلا سي فيغا خامن موي راود سيرني عبد الامين ني ني تام ني تاخوال لن فيغا خامن موي راود شيخ الحاج عبد الله الدباخ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته